6 novembre 2020, le ministère de la Santé sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 768 tests réalisés, 8 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,04%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons deux cas par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et cinq cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 1, Mariste 1, Ngor 1, Wokam 1 et Nord Foire et 21 patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. un cas grave est pris charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce jeudi 5 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 675 15 676 cas ont été déclarés positifs, dont 15 294 guéris, 326 décédés et donc 55 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients retenus dans le, nos services ou suivis dans les domiciles. Le ministère la Santé l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelle et collective ma jottali leen communique bi bàyyeekoo ministère la santé et de l'action sociale tey bésu ajjuma juróom benn fan ci weeru novembre bi ñu nekk ministère la santé de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajalim ci juróom-ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett test yi ñu def juróom-ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ñaari cas contact mooy ñi jot ci mbas euh, mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn ka importé mooy ki jóge bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci juróomi cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fiñ ko jëlee wala ki leen ko la ñooñu nag seen lim ni la tëddee Dakar Plateau moo ci am benn Mariste am benn Nord Foire am benn Ngor am benn Wokam am benn ñaar fukk ak benn si malade yi ñu entrée woon hôpital wala ñu toppoon ci biir kër yi am nañu tan bu si yàlla àndee dinañu génn tey benn malade moo nekk réanimation kenn ñàkkul bakkanam bu su demb alxames juróomi fan ci weeru novembre ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn si ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junne ak juróom ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent wér ñett téeméer ak ñaar ak juróom-benn ñàkk seen bakkan mu des juróom fukk ak juróom si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé de l'action sociale.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 di dandante ci yenn bërëb yi wala ci ndaje yi